salaamaaleykum Sénégal lii nag c'est urgent bëgg naa ngeen partager ko bu baax a baax comme ni ngeen koy defee ci yeneen vidéo yi jëmm ji dafa defal Sénégal lu rëy rëy après ci ginnaaw mu ngi dund loo xam ne nii non en tant que wala dem jeu olympique salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur seen sant. kuy faral di seetaan sama vidéo di ngay faral di dégg ma naan Francky Louis François Mendy athlète bi nga xam ne ne kii mooy seul athlète sénégalais bi qualifié ci jeu France mooy ki ma wax naan mooy suñu Usain Bolt dañ cee war a def suñu kéem kattan actuellement li ko dal. avant juillet ci laay ñëw nii bu ngi noonee mooy que ba mu qualifié depuis juin bi weesu moom la qualifié ba nii jotul subvention pour préparation jeux olympiques lépp moo koy demer del boppam annulé na ma trois stages yoo xam ne nii stage pour préparer loolu di compétition du jeu olympique bi cent dix bi bokk ci discipline yi gën a difficile ci athlétisme mu doon recordman Sénégal mooy record bi defoon noonu war monde actuellement ñëpp di ci wax mu ngi noonu ba pare championnat championnat d' Afrique yëpp mu koy raafale muy petite catégorie meeg senior rek jeu africain yeeg yëpp di yóbbu drapeau Sénégal sore sori parfois dafay jot ay proposition ci ay naturalisation xam ngeen français ak anglais yooyu bu gisee da ngay performer am talent sa dëkk joxuñu la li cër bi war ñoom dañ lay jéem a xëcc naturaliser la jox la nationalité France nga leen dawal di jël ay trophée gis nañ fi kase aan yàggul dara. kase aan doon dawal Sénégal di performer joxuñu ko gëdd blouson bu mu yóbbu sax amu ko woon danaan blesse di fajal boppam français yi tegal ko lu leer nañ teg ko ci condition yi normal mu jël nationalité France lu ne mu dégg ko fekk ne ne tolof tolof rek la doon dund Sénégal da yore njaboot kii tamit moom lay dund tey ji bu jëloon nationalité français ñu commencé di ko moom gëmoo leen Sénégal gëmoo leen seen dëkk alors que joxuñu leen gëdd gi war moom nag façon bu ne tegal nañ ko ci table bi mu lànk na Sénégal moom lay représente jub ko sori mooy dul mooy ñun sénégalais ñu taxaw ko waaw problème bi nag nekkul nag ci résime bu bees bi pour le moment nag ba muy qualifié juin la woon boobu régime bële la woon kon nag régime bu bees bi ñi jiite sport bi dama leen ni artu dama leen ni sàkku leen wax na ne gone gi actuellement soxlaa na subvention pour mën a participer jeu olympique bi kon nag bëgg naa ngeen partagé ko ba ministre de sports bi ak ñi jiite wàllu sport bi ci Sénégal fii ñu jot ci ñu bees ñi ñu jot ci te xam ne ne sport dafa bëri ay jafe-jafe kii ci la bokk te dafa qualifié Jeux olympiques doon l'unique sénégalais bu war a daw ci cent dix mooy daw bi nee naa leen mooy suñu Usain Bolt te dañ ko war a jox cër. ak saa nag deux mois moo des ci Jeux olympiques bi te foofu préparation bi war sax doo ko mën deux mois moom mënoo cee performer moom boo ci deful performance moom bu kenn membre préparé nañ ko cinq mois avant wala six mois ba mu qualifié on peut comprendre bu performé wul mën nañu wax mais instant ni nii moom non nan nan def li war ci moom soutenir ko maa ngi dégg sax ay cagnotte pour may ko may ko doole et tout mais lii suñu dirigeant yi waruñoo xaar cagnotte waruñoo xaar cagnotte non non li may interpellé mooy que ñu dem taxaw ko jox ko li war mu dem participer ñëwaat représenter Sénégal nag Jeux olympiques on parle de Jeux olympiques compétition bi gën a mag ci compétition yi. regroupé nation yëpp regroupé mën naa discipline yëpp kon loolu du ndaw mu war a yóbbu drapeau Sénégal non mais gars yi nañ ci bàyyi xel te yàlla tax ñu partagé lii jàppale gone gi di Louis François Mendy xale bu ndaw la mais daanaka lépp moo koy defal boppam day blessé sax sax di faj boppam xam nga loolu ça ne fait pas boo ko laajoon est-ce que am na blouson sax est-ce dina la ko wax dina la ko jox kon nag ministère bu sport ministère de sports bu bees ministre de sports bu bees bi di soxna Xadi ñu ngi lay sàkku gone gi c'est à encourager c'est à vraiment war nañ ko jàppale bu baax a baax a baax a baax loolu daal laa leen sàkku di Tebas gars yi nee na en tant que moom fan Real Madrid bëgg naa gis Kylian Mbappé foofee ca Real loolu nag jur na coow catalan yi neen duñ ko ko muñal kàddu yi ñu ngi dem maa ngi ñëw président Liga Tebas nag kàddu yooyu mu génnee moo yëngal Espagne actuellement yenn merengue yi ànduñu ji yenn catalan yi nag lu ne ñu ngi koy yàq naan ñu ngi doog a comprendre ñu doon wax lépp ñu ngi koy dëggal mu ngi noonee mu doon mbir moo xam ne actuellement jur na coow kooku di Tebas doon président Liga espagnol bi moom dafa génn ci benn interview di leeral na ni moom en tant que fan Real Madrid moom dafa bëgg a gis Kylian Mbappé ñëw fa ca Liga ci mooy Real Madrid mu ñëw foofeel mën na mën na mën na ñëw tamit Kylian Mbappé mën na ñëw. gën a yokk marketing mu gën a yokk sponsor yi dëgëral marketing bi bu baax a baax baax may lumière Liga espagnole comme ni ko doon Messi Chris doon ko defee loolu avantage la pour waa espagnol mais li yenn mere ngay nangul nee na warul woon wane position bu ko defee catalan yi tarfatin ay ni ci tuuti ci erreur bu amee rek dinañ ne ah li lañ doon waxati Tebas mu ngi nii fan merengue la et moo tax muy muy muy muy favoriser Real Madrid catalan yi tamit ñoom ci wet ñoom li ñu doon wax di ko tuumal Tebas tey ji moom dëggal na ko et mu doon mbir yoo xam ne nii jur na coow foofee ca Espagne ba ci Euh, mën naa ni monde entier ma leen xaar ci commentaire yéen nan ngeen ko gisee moo xam ngay merengue di catalan kàddu yi nga xam ne Tebas génne na ko ba xam amoon na droit génne ko wala ma ko ci commentaire ñu waxtaanee ko no problème mu ngi noonee en tout cas daal kàddu yooyu la Tebas président Liga génne wax ma leen xaar ci commentaire nan ngeen ko gisee képp koo xam ne nag abonné go suma chaîne YouTube duggal suma bio TikTok nga bës logo YouTube bi mu yóbbu la chaîne YouTube bi nga abonné activé cloche di seetaan vidéo yi ba mu jeex loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax ba beneen yoon ci yeneen i merci à vous jaajëf jaajëf jaajëf. eh. eh aujourd'hui aujourd'hui aussi <laughs> c'est une. Daïla. Eh le monde part en couille. Eh. Eh, eh. Eh aujourd'hui aujourd'hui aussi c'est une. Daïla. Oh Hey, le monde parle. Hey. Hey. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Oh le monde part en couille. Trouve ça dans le Aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est. Oh là là. le monde part en couille. Eh Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Oh là là. Le monde part en couille. Non. Tout ça va dans Aujourd'hui, <laughs> aujourd'hui aussi, c'est. Le monde part en One, oh, hit that one. Oh, God. One, oh, hit that one. ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه بكلمه نشيطك والله بتاعتي ابو اللي جابك عليك كمله كمله ألف سلامة يا كابتن كويس كويس ألف سلامة يا كابتن لازم يروح ألمانيا لازم يروح ألمانيا كابتن محمد عمل له فرمان يا كابتن كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال شوية شدة ولا ايه؟ طبعا راح يقعد راح شوية طيب يقعد راح شوية انت رايح فين؟ كنت عايز عمليه جبتوا منين يا عم محمد اعملوا اعملوا له عمليه اسمع اسمع ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه كلمه نشيطك والله بتاعتي عن اول اللي جابك على التليفون يا عم ألف سلامة يا كابتن كويس كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا لازم نشوف كورة ألمانيا كابتن محمد عمل له كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال تعال يا شوية شدة ولا ايه؟ طبعا احنا نقعد نريح شوية طيب نقعد نريح شوية انت رايح فين؟ كنت عايز عمليه جبتوا منين يا عم محمد اعملوا اعملوا له عمليه اسمع اسمع ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه بكلمه نشيطك والله بتاعتي اول اللي جابك على التليفون كويس كويس الف سلامه يا كابتن لازم نروح المانيا عملنا فرمان يا كابتن كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال يا شويه طبعا راح شويه طيب راح فين؟ كنت عايز عمليه بتموتوا منين يا عم محمد اعملوا له اعملوا له عمليه يا عم ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه بكلمه نشيطك والله بتاعتي ابو اللي جابك عليك يا الله كمله كمله ألف سلامة يا كابتن كويس كويس ألف سلامة يا كابتن لازم يروح ألمانيا لازم يروح ألمانيا كابتن محمد عمل كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال شوية شدة ولا ايه؟ طبعا راح تقعد راح شوية طيب اقعد راح شوية انت رايح فين؟ كنت عايز عمليه جبتوا منين يا عم محمد اعملوا اعملوا له عمليه Didn't have to cut me off. You didn't have to cut me off.